chers téléspectateurs de Pikini Production dal leen jàmm ci cette chronique mode ñu ngi HLM 1 le salon Feuz Fashion semaine bu nañu yokk femme pour ce premier numéro make-up la make-up. pour peau noire ak peau claire Vous ne ak sa façon. tey nous dañoo une ci émission bi di def euh, di euh, make-up Le euh, make-up est dafa doon loo xam ne actuellement lu ñëpp bëgg vraiment am na ñoo xam ne nag war nañ ko def am na ñu ko war def du ñëpp nag ñoo war a def may up aussi tamit mais dañ leen di wan daal as tuut loo xam ne mën nañ ko ci ñu jéem leen woon ñu bokk ko lii base la boo xam ne dafay fixe maquillage bi en plus boo ko defee day rafetal sa maquillage aussi tamit. jigéen daal boo xefee mu dafa am koy defaree ku ak li ngay def base bi mën nañ ko defaree nit ku xees bu dee teint noir am na beneen façon. waañ weeg seen seem taj wi ak feem takkusaan takkusaan tay baas tay maam bëri mbubu nii jinne soo defee base ba pare danga koy bàyyi mu fixé wu tuuti nga làmm mu leer na ni fixé wu na ci biir kanamam toog na. nga jël sa crayon boo ko épiler ba pare épiler bi dafay jaar yoon su xasee ba jaar yoon rek booy ñëw di crayon normalement gis nga fii distance bi ni mu mel da ngay teg fii fii soo fi tegee dangay mel ni lu koy fomp brosse tuuti di dem di brosse tuuti di dem am na nag pince suñ koy defee mais man nag crayon noir crayon marron bi laa koy defee damay dem dem ba ci cat bi léegi soo defee crayon ba pare Amna lo xamni pour mën ko tass normalement la da ngay jël li def ni diko def ni diko def ni di pousser par nank nank actuellement bo amul li mën nga jël ben brosse mascara bu jeex mom fompe, koy fompee benn la rek mok mascara bu jeex comme boudé nit ku xess dafa am trois façons boudé nit ku xess ki da ngay jël bu weex tal bi mom la utiliser pour ki dafa xess laal tuuti fii pour mu maase la nga def nii sa loxo rek nga koy maasalee léegi damay jël bi gën a weex mooy bii pour moom teint clair la xam nga ma laal ci yii nii ma koy laal nii boo defee nii blanc bi nii lay def ak nii moo koy am pour laal nii tuuti lañ ci soxla rek pour fii parce que sinon boo ci defee lu bari affaire bi ni muy génnee da lay changer tuuti rek nga ci soxla tuuti def ko nii rek ci cadre bi na koy natt ci kiiwu gémminam catu gémminam gi nii rek nga koy defee hmm? Hmm? gis nga yëf yi commencé génn bu xees bi ci nii lay nekk nii fii noir laa fi defoon noir beeg xees bi nii la exemple su ma laalee tuuti nii hmm? commencé génn di fess ma jëlaat bi laal tuuti nii da ngay defal nit lo xamné dina ko mën a lu neutre lay doon mën baña bañ doon faar dafa fess exemple mën nek fond noir mën nit aussi tamit teg na marron la maron la jël def ko seen digënté maron bi tamit duma ñëw tëb rek def ko ni bàyyi nii déedéet maske ko nii ñu ñaar nga leen jaxase dañ dugalante nii voilà eyeliner bi ni lay nekk ñu bari mën nañ ko tegal seen so def

soo defee tuuti nii ci saumon bi farage bi bañ a fës trop trop mhm, nga def nii tuuti rek mu dab dabal diggante weex bi ak noir bi nga laal foofu tuuti bi marron la sûrement que comme moom ak teint bi dina ko jàpp paree balaa ma teg poudre ma laal ci bronze bi tuuti rek loo xam ne exemple pour mën a génne ko tuuti lu bari nii rek nga koy def contouré ko comme nii ci kaw fii nga def fii tuuti bu fekkee am nga poudrier bi nga laal nii rek ngay def fekk def nga ba pare finition la rek lay doon nii rek ngay def nii rek bi mooy make-up pour nit ku xees ki c'est simple bariwul bronze bi ci digg bi sonalu la ci côté bi aussi tamit sonal la simple na nice na vraiment waaw ku ne mën nga ko def sa kër boy genn diiné yi aussi ak lépp mais bu nek nak ak bosam ku ñuy genté nak digaluma ko make-up parce que tout ma tout temps ak masque bi vraiment moom masque bi da ngay waru parce que sa kanam day dis lol motax vraiment ñu defaral le maquillage simple mo gën make-up bi parce que sa kanam masque bi nek da fay dis trop mais légui ku juk bu ñëwé make-up lay santané sama ngénte make-up la soxla man ak suma sañon bo ñëw ñu défaral la maquillage bo xam du make-up té dina rafet macha allah. Ah, chers téléspectateurs li lañ leen indiloon ci façon j'espère que neex na leen maa ngi leen jox rendez-vous dans une semaine.